asalaamaaleykum réewi Gambia seen xarit la di king te nag lu maa ñëw wax xam naa du neex ñu bari waaye noonu mooy àdduna protest buñ bëggoon a defal Fatoumata Kabo élection saturday bi maanaam 3 février 2024 dañ ko stop maanaam samedi bi éleg buñ bëggoon a def jimpex nga xam ne peaceful protest lañ bëggoon a def jimpex utali ko Westfield dañ ko stop du amaat ñu bëgg a def pour Gambie ñu xam ni jarul ñuy génn éleg di dem jimpex protest bi stop nañ ko lu tax ñu stop ko nag Magi Fatoumata Karbo bi nga xam ni moo demoon si police yi dina ñëw mu def vidéo mu leeral waaye pour Gambien rek nañ xam ni protest du am suba stop nañ ko na ñëpp toog seen kër yi ñu ñu ngee waxtaan ak government bi ak sécurité bi suñ demee ba nga xam ni war nañ koo def ñun dinañ ñëw fii ñu wax leen ni dañ koo def waaye ëllëg moom protest bi du am stop nañ ko man king nag ak suma tiim bi ñun politique taxut ñoo jóg ñu lu ñu jóg mooy Gambia Gambia rek ñu tax a jóg Gambia jaral nañu lu nekka waaye amuñ dara luñ def ak politique mun naa laa jox exemple fii lañ fi téye suñ xale yi Oman xale yu bëree bari ma def team ñu fayta fayta fayta ba yàlla dimbali ñu jaawel sponsor gaay ñu àndi leen maa doon dox loolu ak suma team bi ba nañ Gambia ñaareel bi fii lañ nekkoon di rapino ay nit yu bëree bëri suñ koñ fële Kunda ma fom fi team boo xam ne ko ooyee anti rapino ñuy nekk di jàpp criminal yi di leen anti crime time boobu góor ngi mbubbu ngee dunda ba honorable Dou Sano gis suñ mu oma boolee ma minister of interior. kon Gambia rek moo ñu tax a jóg waaye du politique dama bopp Gambia xam loolu protest bi stop nañ ko lu si xew dina ñëw ñu wax ko bu kenn dem Jimpex